xamoon lan moo fondé wal fajiri wallaay doo jël say pexe di ko jëmee ci wal fajiri wal fajiri ku ko laal la laalaate moo tax du ma fi nekk du ñaan kenn du ma ñaan ñoom lu ñu dal ci suñ kaw pour naan nañu dimbali rek du ma ñaan kenn may ñaan daal mbir mooy borom doole ji nga xam ne dooleen di pinkee ko na gën ci lépp moo ñaan borom doole ji nga xam ne tamit mooy borom nguur gi du solleeku kooka dong li dal ci suñu kaw moom laa koy ñaan moom laa koy tàllal samay loxo waaye dama ko tàllal di ko jëme ci mel na mu def wal fajiri nag bu mënta coupé leer di euh, émettre ci xolu soppe yi ak Sénégal yi mënu mënuloo coupé wal fajiri jéem mm-hmm. ko nag mën naa ne mais def ko moo mënta ne kon daal bëgguma cee sax sori ay wax yu bëri mm-hmm. loolu rek laa ci amoon kàddu yoo xam ne maa ngi koy wax mm-hmm. ndax wax dëgg yàlla sama xol neexul tey lool sama xol daal neexul. sama mhm. xol neexul lu ma cee sori ay xanaa ñu laaj rek euh, ki nga xamante ne moo sos kër gi di El Hadji Sidi Lamine Niass ba mu ñibbee aljana ak léegi dañoo gis ne dafa am benn yabeel goo xamante ne dafa dal ci kaw ñi nga xamante ne ñoo di njagwatam ñu yaakaar ne amul ñu leen tingoom amul ñu ciislaay te yéen a ngi fi. loolu lépp mooy foog ne loolu lépp mooy réere foog ne borom kër gi dem na rek waaye kër gi demul fenn. te borom kër gi bi mu fiy ne kenn mësu koo songu am ci ndam li fi bàyyi tamit amul lenn amul kenn ku koy songu di ci am ndam te lépp mu ngi ci suñ kanam dana gën a leer te ñëpp dinañ ci xam li ñuy wax mu ngi ci suñ kanam incha allah waaw loolu moom bu ma ci nekk bëgguma cee sooy ndax sama xol ñëpp jërëjëf Niass Koumba Abdallah jërëjëf Niass lii day dalal xel yi mu war ne mbokk yi mi noonu kàddu yi daw na yaram lool muy kàddu yoo xamante ni mooy kàddu yi oustaz Hady nekk foofu ca Walfadjri ginnaaw li nga xamante ni euh, dal na seen kaw muy lu metti lool nga xam ni comme niñ ko waxee rek ñu ko jotee dem ba léegi que ni li nga xam ne moo di état bu Sénégal nangu na licence li nga xam ne moo di Walfadjri la fa nekkoon ci emploi na kenn xamul nu mu toll waaye yaakaar naa ni comme ni ko oustaz Hady Niass waxee rek Sidi ba muy dund ñoom ñu mel nii mosuñoo am ndam ci kawam ca ba léegi li mu fi bàyyi maanaam nitu yàlla moom euh, nu koy waxee rek bu génnee àdduna randuwul dafa làqu rek waaw ndax yaakaar naa ni euh, wal fajiri jëmmi wal fajiri boo nee coupé nga signal bi nangu nga licence bet teewloolu fajiri day dem waaw comme ni ko Oustaz waxe ngeen gis noonu sitting bi nga xam ne ñu ngi ko doon amal foofu ca buntu wal fajiri ngeen gis noonu doomi eh, ki nga xamante ni moo di eh, Salma Niass ndeysaan nekk déretu Sidi Lamine ñas ngeen gis leen noonu ñu toog ci eh, sijaade gi li ko waral mooy am na lu leen naqari lool ndax li nga xam ne def nañ ko muy nangu licence Walf Fadjri bul xam ñaata père de famille ñoo fa doon liggéey état xëy xëy ni def koy décidure ngeen dégg sax sànq ci ay xibaar buñ sukkandikoo ci Dakar Matin di Pape Alé Niang muy xam le ni daal police ñi ngi foofu ca siège bu Walfadjri euh, muy lu doy waar loo xam ne daal kenn xamul naka lañ ko mën a expliquer lii li lay xamal ni maanaam mbir yi euh, du neen mooy depuis démb ñu coupé signal Walfadjri ba léegi nit ñi ñu ngi am Walfadjri programme bi ni ñu ko doon amee ci mooy rajo bi muy li nga xamante ni moo di moo di télé bi ndax internet léegi presque télé ci poos moom la nit ñi gën a cliquer télé yi parce que télé boo xoolee kër goo dugg léegi am na internet yaa ngi dégg ñu ne la coupé nañ internet ca boobu ak léegi yaa ngi am information ci internet 24 heures sur 24 moo tax nguur moom bu ko yàlla jeexalee rek jeex na mënoo def ay pexe pexe pexe pexe pexe pexe ba yàlla ne fi la yem fi la yem ñun dañ woon Macky fii ak 24 jours gën jaa bari 20 jours Macky Sall daf ñuy abal mais nga dégg ñu naan ay 6 mois bàyyi 2. deux ans loolu kenn xamul lan la loolu pour lan pour lan maanaam moom daal nee na moom doyalugul du dem ba kañ ñun ñu nar a toogaat di xaar loolu démb Ousmane Tounkara révélé na ko Ousmane Tounkara nee na PDS ñoom li ne xeex ni ñoom wóor na leen ni Karim parewul pour jiite Sénégal Karim parewul sax laa la wax pour jiite li nga xamante ni moo di Sénégal ñoom ñoo bëgg a taafante loolu rek ay problème Karim Wade Karim kan moo ko mas a dégg Sénégal di dund lu métti ba Karim yëkkati ci loxoom wax ko ci askanu Sénégal seen bët musul xong ba Karim war taxaw pour fompal leen ko kon tey bu demee ba fii nii élection nar a am ginnaaw suba la campagne suba la campagne campagne yi commencé na ba ñi nga xam ne ñoom ñoo di candidats yi war a dem RTS ngir enregistrer li nga xam ne mooy moo di seen temps antenne ñu jóge fee naan ay euh, dan da da dañuy arrêté li nga xam ne moo di élection yi dañ koy dañ koy rapporté. ndax waa PDS nii ak nii ak nii ak nii ak nii yi ñoom ñoo gën a xam ne ñoom ñoom ñoo gën a xam ni instant bii nii ñoom dañoo am majorité moo tax buñ ju bu buñ buñ julee buñ jógee ci wàllum vote rek nga xam ni li naroon dinañ ko amal te lii moom ku ne xam na ni mooy nooteel dëgg yow boo daan génn ñu di la tàccu dem ba tey ji boo dee génn ñu di la sànnee xeer doyal nan doyal nan doyal nan doyal nan doyal nan wax dëgg yàlla nag boo jiitee peuple dem ba peuple bi ñu doyal nan ci yow nga ne peuple bi yow di nga war li nga war en tant que président da nga war maanaam man peuple bi yéen yéen a ma tànnoon doyal ngeen seen njiite ngoog tànn leen ca loolu sax dafa doon yomb te ji ba organisé woon élection deux mille euh, vingt cinq février bii nii tànn na Amadou Ba tànn na ko waa Pastef nee na Sonko du dem Pastef Sonko nee na maay Jomay Jomay mooy Sonko Jomay a ngi noonu Pape Djibril Fall génn fii keneen ak keneen génn fii tànnoon nan candidat yi ba nga xamante ni. lépp normal la li des rek mooy dem campagne voté kuy gagné gagné am ñoo xam sax dañ naan maanaam man ànduma ak Macky Sall ànduma ak Pape Djibril bëri na ñoo xamante nii tey jii Macky Sall lan àndaloon ñi nga ci xam bëri lool ñu ne ñun li instant bi ñoom xamatuñ ci dara seen yoon nekkatu ci Macky Sall ku ko jaay bam puus élection yi dugal na la ci kambo instant bi ni woyam dafay gën a ñaaw man loolu laa yaakaar woyam instant bi dafay gën a ñaaw lépp li nga xamante ne ñi ngi ko ko doon waxal naan Macky Sall démocrate la ci leen dox moom la xam instant bi nii dafa xotti jargati li nga xamante ni moo di euh, moo di moo di moo di démocrate instant bii démocrate dafa nërmeelu fii ci réew mi li ko waral mooy jaay doole gi nga xam ne ñu ngi koy dëkk di ko teg euh, rawatina ñi nga xamante ñoom ñoo di peuple sénégalais bi amoon yaakaar seen réew que ni vingt cinq février li nekk di dund nii dafay jeex benn une bonne fois pour tous ak ku mën di jiite réew mi. mais nga ni élection du fi am nga teg ko fan fenn la tegul fi mu ne nii élection yi fi ne nii rapporté nañ ko euh, kenn du xamaat kañ la koi le vingt cinq moom waxa waxam parce que instant bii nii may wax ak yéen nii député ñaa ngi ci national ñoom Guy Marius Sagna taxaw nañ ni vote du fi am mais doo comprendre quoi coupé nañ li nga xam ne moo di internet euh, Dakar dem dikk dawul moto yi mënuñoo circuler borom moto yi liggéeyuñu Dakar dem dikk dawul ñi doon ñi doon ñi doon nekk seen barab liggéeykaay doon xëy ci dem dikk mun amul biis yu dem foofu dañ leen di dàq wal fajiri moom nangu nañ licence surtout loolu ñun loolu sax moo gën a tax ñu def vidéo wal fajiri nangu gi nangul licence loolu dafa ñaaw mbokk yi ci réew moo xamante nii lan la ngeen dégg kàddu yi nga xam ne Cheikh Niass yëkkati na ko barki dem maanaam moom wal fajiri danoo pare ñoom pour jaay ko ndax lan danoo doyal amatuñ yaakaar seenum réew loolu dafa métti mbokk yi dem ba amatoo yaakaar sa réew en tant que sénégalais di tiitaroo seen réew dem ban yow man réew mi amatuma fi yaakaar damay jaay samay bien xoole ji lu ma def damay jaay samay bien continuer sama métier avocat mais dama ñëwoon pour investir fajiri nit ñi ñëw di fa liggéey ma di leen jël ñuy am ñuy am loon tedd di ci teral seen njaboot loolu comme mënatul nekk man gisatuma sama bopp ci réew mi damay obligé jaay Walfadjri doylu ca lendemain ba ñu ne ko maanaam nangu nañ licence am kon Walfadjri maanaam kontatul mbokk yi loolu métti na quoi métti na tamit te ñu fenn fu ñu ko mën a jooytoo leen ko yaakaar mais maanaam vingt cinq février bii nii ñëw ñu tànn président bu bees démocrate yi dekkiwaat Sénégal nekk fa mu nekkoon mais c'est la première fois depuis 1963 bi Sénégal jotee li nga xam ne moo di indépendance am ak léegi ñu ngi fii door a dàq ay élections. xoolal lii c'est bizarre c'est bizarre te ñu ngi am deux mille vingt quatre deux mille vingt quatre réew yu bëree bëri ñu ngi moom seen bopp di bay di dundee démocrate di wéy foofu normal ñuy ñëw Sénégal ñuy ñuy dund ci buumu njàmba léegi lii metti